mbokk yi jërë ngeen jëf dellu gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur euh, Média 8h euh, jot na ba toftal 43 simili ñu yegg si nag ci kàddu askan wi nu nu koy defee suba si nekk ci antenne bile. Euh, tey jii antenne libre la ku ci nekk daal yow yaay tànnal sa bopp la nga bëgg a waxtaanee ci 88 628 14 14. 88 628 14 14 maaleykum salaam kooku. voilà Barthélémy. waaw. Oumar Sow noo def Oumar. sant bu baax baax mu ñàkk mu ñàkk moytu. waaw yàlla baax na naka waa Fuladu. yàlla waa ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant ñaanal sama ñaari waajur ñaanal Sénégal ñëpp rawatina El Hadj Youssou Ndour. si hmm. ah, taxawaay bu mu am si vraiment si biir réew mi quoi. man tey ci affaire wu chemin de fer bi laa bëgg a waxtaanee Barthélemy. Hmm. Eh, chemin de fer bi eh, mun naa la wax actuellement nii. Eh, hmm. mu ngi si ay loxo yu wóor. boo xam ne incha allah su peu de temps train Dakar Bamako bi dina commencé daw si c'est xale boobu te mu sant xaw ma nan kii euh, Kimeli Touré mhm. mooy administrateur kii Dakar ferroviaire bi ak Mayacine Camara mhm. bu ñu fu toogee fii ba léegi ñu ngi def ay jéego yu rëy loolu il faut population bi xam ko xam ne carrément gars yi tooguñu sa nee sa nee na yasar ñu ngi def luñ ci mën laa la wax man li may ñaan rek mooy état bi ak banque mondiale dañu war a gaawal seen loxo gaawal financement bi pour affaire bi mun a daw te semaine mhm. de perte euh, euh, bis bu taxawee fii laa la wax askan yu bëri laa la am ci yoonu Tamba bii di dégg diggante Mbour ak Kaolack wala Mbour ak euh, Tamba. Mhm. dina mën a wàññeeku si si après yu bëri doon jaar ci kii si su kii si camion yi dina dem mën a dem si train bi. loolu daal man damay ñaan El Hadj Macky Sall na vraiment na jàppale ñooñu pour financement kii mën a gaaw ñu gaaw a taxawal gaar yi nekk si dëkk yëpp semaine perte bis bu taxawee fii laa la wax. économie bi si boppam laa na dina yokk bu baax a baax a baax rawat na mel ni ay Koupentoum mel ni ay Kaolack mel ni ay Guinguinéo loolu yoo xam nga loolu kii la ci mhm. may jeexalee mooy vraiment di fàttaliku El Hadji Macky Sall xam nga ne am na benn xaritam boo xam ne liggéey na ko lu ne laa la mooy si élection yi passé mooy El Hadji Ibrahima Diaw lu bari président conseil départemental bu Vélingara secrétaire général RCD vraiment nit koo xam ne lépp lu mu am Eh, ki belengra motax mu Sénégal motax mu kii ko. lu mhm. mel ne boo ko amee vraiment war ko gëstu vraiment di ko fàttali ko toujours loolu laa mën ci wax di lengra gërëm len ñaanal yalla yalla defal len jàpp. d'accord d' accord jërëjëf Oumar Sow 88 628 14 14 ñu xaar kenen ci ligne bi euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. koku Lay Maxtaar Baltidimi Gazu. waaw Gazu no def. ماعن زيار بو باخا باخا ني ديلو زيار بو باخا واو قبل كل شيء نيغي زيار خليفه جلال ديال الاله راجب عبد الله تشاو يالنا في يغت غينا وير اك مبولم خليفه الاسلام ياب اي باركليمي اا اسكو خمغا دوموند بو باري داي ديم با سوف مانام دي لات ني دفرال لا نانغام داي ديم با سوف غيسغا ابل بي انكور جوبسينا بريزيدان ماكسال لاي وخال اك نيغا خامني نيوم لا جوخ ليغي بي موي وا اجيروت xam na ne liggéey tali mënuñu ko liggéey ci weer mu pare manta nekk ak ji war a dem yëpp mais nanu ñëw daal di dégager li ñu war a dégager ubbi beneen torsion bi ñin moom pour euh, enclavement bañ a am ñu ubbi ko appel bi jub si na ñu defaral nu fii te nag du ñu tay chaque jour di ko wax waa Ageroute Ageroute moo deful liggéeyam encore xale yi Cambérène baareew nu dara téew nu dara benn liggéey. ma mhm. bëgg ñu ñëw liggéey ko.

du mbifaan mbifaan mooy ko xamul dara ku xam dara xam na li muy def am na ay ndaw yu ko fa nekkal ñu ngi koy seet xale yi te bàyyi na leen xel saa su ne mu ngi ciy laaj loolu yitteem la ndax ay doomam la ay jarbaatam la ay sëtam la ñu yaa ngi fàttaliku affaire Ebola bi mu fi amee euh, euh, ki Barthélemy mhm. kii rëccoon Guinée daal di dugg fii Parcelles Assainies dañu assiégé gendarme yi ñoo doon monté seen kër bi mu ne te bi muy dugg kenn xamu ko kon mbir yi dafa def ci teg bëtëm da ci teg bëtëm teg ci loxoom du def liggéey nii dans le comme ça nii rek dans leur vide du ko def kon ñu ngi rafetlu waxu Abdoulaye Wade bi rafet na président Wade mais nag nan bàyyi président mu liggéey xam na li muy def ak ministre bu xëy bi Abdoulaye Diouf xam na li muy def bu baax ñu ngi ñaanal Sénégal gépp di ñaanal xalifa yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Gazou 88 et 628 14 14 ñoo xaaraat keneen ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp euh, la nga bëgg a waxtaanee ñu teewlu la ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum Barthélémy waaleykum salaam Boubacar Jara Kees Boubacar nu ngi lay nuyu nuyu waa Thiès ñu ngi lay fay auditeurs yëpp di leen di nuyu di leen sant bu baax si vraiment seen émission bi. Hmm. Barthélemy dafa am ñu nga xamante ne suba gu nekk du ñu départ dégluwuñu rajo bi nga xamante ne fi la ñuy déglu ay xibaar yi leer te wóor ci si kàddu askan bi. Hmm. Eh, di ci si rafetlu taxawaayu bool yi ak ñoom Moussa ak ñoom Logada ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax ñoom docteur Papa Amadou Ndiaye gis nga Saraay. chemin hmm. de fer bi. président Macky Sall moo ñu ko waxoon ba pare wax force track mais tey jii suñu demee ba nga xamante ne ndaw réew mi ñoo jënd seen crédit ndaw réew mi ñoo dugg ci rajo bi ndaw réew mi ñooy wax kon moom war naa déglu wala ñu jottali ko lu nga xamante ne mooy kàddu askan wi émission bi da caaxaanaa ah, dañ ne kaddu askan wi ba pare askan wi dañaa bokk ci biir askan bi votal ko mu nekk président ba pare jënd xëy di jënd seen crédit dugg serveur vocal pour di wax lu nga xamante ne mooy kàddu askan wi

mais mais alal boobu ñu fay def su ko defoon ci biir sama affaire tey jii ville bi dañ si liggéey dañ si am xaalis dañ am paasu su équipe bu championnat de football ñu paas dem stade pour mën a seetaan équipe championnat hmm. di football amul benn stade buy fees parce que lu tax muy fees mooy que da ngay am xaalis pour def stade mais ko amul loo lekk amoo liggéey amoo dara ci Jakarta nga koy wéer ak jaay kafe Touba munoo dem di dem seetaan ay match sa njaboot. Mhm. kon ñoo koy jox appel ci sama affaire fer bi parce que sama affaire bi manam Sénégal yépp ko soxla ndax tay ji su fekkoon millions yi def ci état bobu suñ ko defoon semaine de fer jële ko Dakar ba boole ko ñu fay nekk di jaay ñëpp di mëna am lu ñu sukkali ba ci maire buy jaay gerte caaf yalla yalla déggal top ma ngi nuyu docteur ndjay ci kees parce que mom suma affaire fer soxal ndax askan bi dañuy top ko joy chaque fois jërëjëf jërëjëf Boubacar 88 628 14 14 ñu xaarandi keneen ci euh, ligne bi antenne libre la tey ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp ñu teewlu la ci euh, ligne bi ci 88 628 14 14 Abdou am na keneen kat allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. Barthélemy Jim Momar Mané retraité de la gendarmerie à Mbour. Jim Momar waaw nu ngeen def na ko waa Mbour Jim Momar. sawaa ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. man dama bugg a ñëw ci problème mu accident yi accident yi bëri na. Mhm. lool lool lool te doy waar. am na ci nag ñaari façon accident yoo xam ne dama jàpp ne tayeef la te état bi war na ci jël ay mesures mhm. euh, boo xoolee Eiffage autoroute à péage bi de l'aéroport jusqu'à Thiès après Touba mhm. dañu ne autoroute à péage donc autoroute à garder la donc amul limitation de vitesse ay 90 vingt nga fa war a daw bat limi noo mën a may nit ki ne ko kii da ngay fay boo fayee nag lu la neex ngay daw ba pare ay nag di fa jaar ci guddi ay nit di accidenté di dee xoolal kaaw papis galo euh, galo euh, boobu mm-hmm. mais mais mais mais nag yi ci ban ci ban côté la ñuy duggee dañuy traverser autoroute à péage bi mm-hmm. pourtant les gens ne font pas leur travail amul amul barrière buñ ci def barrière ba de ba amul am na bari xam nga dafa war a am barrière et puis mu ñu ko bu fekkee pare wu man jaar naa fa jaar naa fa am na barrière bu ñu ci def xam na ah, mën na am nag barrière bi am amul fu mu yegg wala wala nga xam ne dafay am ay porte d'entrée c'est-à-dire loolu moo normalul boo xasee ne autoroute à péage à garder ñoom am nañ seen i écran bu écran yi kii ñu ñu ñu ñëw defar ko loolu mooy yoon parce hmm. que benn bi ma lay wax nii kenn ko panne essence la te boo panne normalement dans les quinze minutes oto bi dafa war a ñëw enlever véhicule bi mais dafa panne essence ñëw ñu dem jëndi essence ñëw jël bureau bi di traverser tali benn oto fekk ko fa rey ko ça fait pas trois jours hmm. mais loolu aussi mënul continuer après bo bu fa defee bu accident matériel amee ñu ne la da ngay dem dossier bi dem déposer ko Thiès euh, grand grand gare nga koy déposer chez monsieur Diagne ñoom bu déposer seen dossier waa ji jël dossier garder ko boo fa delloo mu ne la gisuma ko bu muy accident matériel. ci hmm. ci ci Eiffage bi. loolu c' pas possible wa direction Eiffage yëg nañ ko coow li bëri na mais nañ ci jël ay mesures. yooyu xam nga accident tayef la accident malien yi aussi accident tayef la. di daw lu la neex ci dëkk kenn du la arrêté autorité bi nga mën a dawee ci kaw tali bi. xëy na du ñàkk comme auto comme autorité yi jël nañu engagement renégocier euh, li ci li ci autoroute bi xëy na du ñàkk aspect boobu ñu soulever ko ci euh, ci biir mbir mi. wàllum wàllum ah. sécurité bi en tout cas en tout cas doyna na waar de. doy na de ngi yàq oto nit ñi. ba paré bu nit ñi démé pour fayeeku ñu di leen dawlo di leen di leen varseloo lolu aussi baxul vraiment nañ garder autoroute bi té it bu accident amé nañ jël seen responsable xam xamné ñom am nañ ci responsable d'accord d'accord merci monsieur Mané jërëjëf 88 628 14 14 ci euh, kaddu askan wi antenne libre la ma ju nek noonu lay démé Abdou cham amna kenen. keneen allo alaykoum waaleykum salaam. oui kooku ñu ngi sant yàlla Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye waaw Ndiaye nu ngeen nu ngeen def. Mhm, ñu ngi lay déglu. waaw ah, fàttali nii maa ngi nuyu sa yi. Mhm. précisément waa Daara Jolof waa Mbëlëx. Daara Jolof Mbëlëx si wàllu lampadaire yi. yu mhm. si président dama si gis lu ma métti. dama koy kaasaaleel ñi nga xam ne dañ leen def sax communalisation. nga xam ne petite leen di wax wala village. parce que dama ci am écho. ñu ne grande ville yi ñoom moom lampadaire yi. Mhm. dafa am lu tax du ko wedd li tax ma tudd ne maa ngi nuyu waa Daara jël boo duggee Daara am na mbedd yoo xam ne joxal nañ leen ko mooy route yu mag yi. nga dem Linguère mu bëri fa lool te Mbëlëxe nekk troisième commune avant ñuy def communalisation. Mhm. di ville religieuse ñu distribuer ay lampadaire Mbëlëxe mënul am lampadaire man loolu damay wax président bi nga xam ne moo jëloon loolu pour jéem ko kii yi dëkk yi am lumière. Mhm. te tey grande ville yi ñuy jox tey lampadaires yooyu am na ñuy marché am na ñuy garage am na au moins fu ñuy jëlee xaalis te communes yi nga xam ne tey yu ndaw yi nga xam ne tey ñoom lañ ko xaj loolu lépp amuñ ko. Mhm. te alalu askan wi lañ jël jox leen ko. Mhm. man damay wax ne le président na corriger loolu à travers directeur bi nga xam ne monsieur Ndiaye bi dëkk Linguère moom la ko jox mu xoolaat dëkk yi nga xam ne dañu war a am lampadaire ki nga xam ne amul xaalis dafa ndóol. mais jàpp naa ne te pour sécurité moo la tax a jóg nga war a jox lampadaire. ki nga xam ne am na moyen mu dem fay Senelec xëcc ay lamp mën def ay lumière ci dëkkam man maa ngi ñaax daal président de la république. mu jëlaat loolu. oh ligne bi defa ligne bi dafa coupé moom Abdoulaye Ndiaye euh, moom da doon wax rek ci lampadaire yi ci euh, dëkku kaw yi rawatina 88 et 628 14 14 kaddu askan wi tey antenne libre la. Euh, ñu xaar euh, kenn euh, wala ñaar Abdou Thiam yow nag yaa yóbbu sama temps bi dem di ma may ñaari nit salaamaaleykum. waaw El Hadj Barthélemy. waaw kooku. siyaar naa la. ñu ngi delloo siyaar ah. Jibril Sène la Jibril ah, Sène Jibril Sène seen noo def. maa ngi sant yàlla bu baax di jottali nuyoo waa Nax Neex. waaw waa Nangal ma Nduuf. ndeng leer mbawal gépp nag nuyul nuyul ma ñëpp ñëpp ñi ñi émission bi di ko rafetlu nuyul ma ñëpp j'espère que ndekki j'espère que ndekki nga ba noppi waaw waaw fi mu ne nii maa ngi ci sax nii de ah waaw maa ngi def yëfi ngomen nii de déet seeneen tey bu dee <laughs> aywa ñu ngi lay dégg maa ngi def ñaari point rek bu ma ko temps bi mayee ci laa bëgg a wax benn bi ci wàllu marché public Barthélemy boo lancé marché nga ne nga tënk ko ci ne pour nga mëna gagner marché bi il faut que entreprise bi au moins dund lu mat 10 ans hmm. nga tënku ko ci ne ingénieur yi ngay jël foog ñu am 10 ans d'expérience ainsi de suite technicien bi même chose même chose même chose hmm. est ce que entreprise mën na judd rek am 10 ans d'expérience ingénieur bi 10 ans nangam ak nangam mais hmm. loolu Barthélemy wax dëgg yàlla euh, xaw ma boddi compté la xaw ma naka laa ko mën a tuddee mais teguwul fenn dañuy lancer marché tënku ko de telle sorte que ay lobby teg seeni i ténor yoo xamante nii pare nañ pour jox ko ñooñu te pourtant Barthélemy ñooñu rek lañu fi jox ay mise en demeure ñoo fi tardé liggéey yi boo duggee ci ci yenn chantier yi. dëkk yi nga xam ne chantier yi def na ay at délai yi ba mu passé kenn xamu ko entreprise yu mag yu am tur yi kese lañ ko jox. dama ne doon ndaw warul mën a tax ñu tee ñu respecté nit ñi jox leen seen àq ci dëkk bi ñu war a liggéey li ñu war a liggéey. Hmm. mais suñ ko bëggee jàppoo noonu du beneen bi aussi nañ favoriser les entreprises nationales. les entreprises nationales du moins hmm. ñu jox leen euh, kii yi comment dirais euh, yi parce que boo xoolee temps yi rek dégg nga fi benn entreprise bu mag bu am tur ñu ne dàq na lu ma deux cent a trois cent personnes parce que dafa manqué ay marché te pourtant ñu ngi jox marché yi tubaab yi te tubaab yi seen bénéfice ak lépp dañ koy dajale yóbbu ko hmm. bu loolu weesoo maa ngi jooyal waa waa waa waa waa waa nguguus zone bawol oh moom tamit euh, ligne bi Jibril ligne bi dafa dagg Abdou may ma kenn may ma kenn mayewul kenn. waaw may leen ma kenn Abdou Thiam a jël sama. ah aca ah, kon bokk auditeurs yi ñun mënuñu laa may kenn. auditeurs yi kon kon nangu nañ micro ci man. nanguwuñ ko wallaay ko xamul suuna ñu téye sa loxo Bart auditeurs yi suñuy waay la ñu joxe xalaat yi <laughs> nañu lijjanti talib ngaabu bi. waaw aca ku nekk ak ci àll bi dugg ci dëkk bi. <laughs> tali boobu nañu ko lijjantil baax. ci nga bokk. mètre benn kilomètre la. aca kon ñu ñu ci ci Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi jëf gërëm leen sant leen ci ànd gaa ngoog yaag oustaz maa ngi lay gërëm bu baax Barthélémy jërëjëf maa ngi gërëm waa Sénégal di jéggalu ci waxtaan week ni mu desee yaatu waxtu wee ñu xoj waaye lu jiw a jeexul jugu fa incha allah vendredi bii di ñëw di nga ñëwaat ànd ak auditeurs yi bu neexee yàlla jërëjëf Barthélémy euh, nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média oustaz Taïb Socé maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed Ndiaye maa ngi jéggalu euh, xaw ngaa yàgg ci ligne bi eh, mais amul solo amul solo xam nga boo dëkkee ki gone yu mel ne ñoom Barthélémy ñoom dégg naa ko mu naan la may ma beneen auditeur maa bañ <laughs> xam nga ko xamul jour naa nag oustaz des di naan ñëpp sa loxo nag wax dëgg de <laughs> ba yaa ngi ci jàmm waaw sant yàlla alhamdulilah ya, ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, auditeur yi waaw xanaa di la nuyu yow moomu jërëjëf di nuyu organe boobu nga may woowee muy rajo Futurs Médias mhm. ak ñi fa nekk ñëpp nag wax dëgg yàlla di fa liggéey di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu réew mi yëpp di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak ya Mamadou Mohamed Ndiaye day ñaan yàlla ajuma ji ah mu nekk ajuma ju bagse ajuma ju màgg amiin euh, yàlla dooli xéewal daal vraiment vraiment def jàmm yaa Mouhamed. Ah. jërëjëf oustaz tey dañuy waxtaanee loo xam ne. bëgg nañoo xam li ci diine wax ak daan maanaam euh, atte euh, atteb diine. dégg nañu fan yi ay xale yoo xam ne dañ leen di saay-saaye. di wax mbiri yàkkataan ñii ñu naan dañuy yegg ci seen kaw ñii ñu naan mbiri pédophilie. Eh, fu ne nag dégg nañu ko fa barab yu ne. Mm. bu dul ci mm. kër yi dégg nañu ko ci ay ustaas yu ne ñoo yu ñu ne ñoo ko def. Mm. dégg nañu ko ci école de football. Eh, yëf yi lëmbe réew mi. waaw xeetu saay-saayay gone moo xam góor la wala jigéen la. Uh-huh. lu ci diine wax. waaw yow amee gannaaw ba ma la nuyoo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sant yàlla. Eh, diine di lim ci wax mooy daf ko ñaawlu daf ko condamné daf ko ñaawlu daf ko condamné. Hmm. diine jàppul sax ne nit ku normal nit ku am conscience bu normal. dina mën a taxaw di def yenn yi. Hmm. yëf yi nag du wàllu ostaas ba kay jàngale football ak yëfu nit la nit la maanaam nit ki nga koy dégg maanaam ci nit rek nga koy dégg nit ka nag la muy liggéey loolu moom la concerné hmm. mais ci nit rek nga koy dégg parce que fi mu amee ñu ne jàngalekatu alxuraan ba en même temps ca nga dégg ñu ne kii jàngal xale yi football. Hmm. noonu lay amee ci kay jàngale ca chauffeur ba noonu lay amee ca jàngalekatu tubaab ba ci nit nit a koy def. ca nijaay jaag jarbaatam. ca nijaay jaag jarbaat la nit a koy def doomu jiit la ba ak baayu jiit la ba. muy jëf ju bon nag jëf ju ñaaw. Hmm. jëf bon jëf ju ñaaw joo xam ne vraiment kenn xamul na koy tafsiree hmm. kenn xamul na koy firee xale bu ndaw nga nga nga dama xamul luy wut ci moom qu'est-ce qu'il y a. Hmm. la yàlla loolu waxoon ay nitam bàyyi leen góor ñi yàlla bindal na leen ay jigéen kon mais yàlla bindal na la jigéen ju mag jigéen ju mag ju mat sëkk vraiment te defe naa ne jafewul pour nga takk soxna pour nga am te jafewul léegi lu tax nga leen fay bàyyi xool xale bu tekkiwul dara koo xam ne da nga ko war a jël jubbante ko teg ko ci mu mustaqim yonent bi waa ji ñëwee ne ko bëgg naa dugg ci lislaam mais mënu may bàyyi jigéen ñi mënu may bàyyi njaalo yonent bi dem na ko garawul ñëwal rek mais waa ji ñëwee yonent bi woo ko ne ko hmm. est-ce bëgg nga ko njaalo ak sa ak sa tante hmm. waa ji ko déet loolu ku ko def ma rey ko mënoo ko jàppal ne ki ngay njaalool tantay jàmbur la mhm. est-ce que bëgg nga ku njaaloog sa sœur mu ne ko ku njaaloog sama sœur ma jël jaas bi mu ne ko jàppal ne ki ngay njaalool sœuru jàmbur la noonu la ko yónnent bi toppee ba waa ji xam ne ndeysaan lu man maanaam maanaam li mënta def xolam mënu ko def doomam waru ko ci yoon warul dem di ko jëli di ko defaat beneen doomu jàmbur ma yaakaar ne itam sa doom bu ndaw filo fidi affaire du kenn xamul noo koy firee mais nit ku normal nit ku normal warul taxaw di def yenn yi islam daf ko condamné hmm. mais Mohamed hmm. am na loo xam ne war nañ ci tey Mohamed gis naa ñu bëri ñu jiñ leen viol mais ñu ko hmm. te ñu ngi ci kaso gi Mohamed ñu ngi ci kaso gi pour dix ans loi yi il faut ñu tey ci il ñu jàmbar ko dinañ ci lor doomu aadama yu bare bare bare bëri tëj leen léegi sax dañ ko def xaw ma leen perpète dinañ ci yàq dundi doomu aadama dañu ko criminaliser na bañ a nekk xeexeekaay na bañ a nekk xeexeekaay yi fii da ngay lijjanti ay kayit imam gis naa fi benn imam bu yàggul yow journaliste nga information yi am ngeen ko. Mhm. jiiñ lañ ko fi wàllu jël ko ba yóbbu ko tribunal mu ngi dégg ko ci Kër Massar. Mhm. en fait ñu delloo waat ko ne defu ko. kon anaka ko ko jiiñ moom lan la ko yoon di teg parce que jiiñ dafa doy waar islam daf ne boo jiiñee nit te lan ko jiiñ defuloo ko yow mi ko ko jiiñ day lay sanctionné. parce que nit boo ko jiiñee tuumaal ko loo xam ne defu ko adduna bi yëpp dereem yàqu mbokkam yeeg doomam yeeg adduna bi yëpp ñu wëlbati ko ne ko moom liñ ko jiiñ defu ko mais ki ko ko jiiñ lan la yoon def ci mom loi yi nañ ko di xol nañ di xol loi yi nañ di xol loi yi ñu àtte ci réew mi c'est très grave dinañ ci lor nit dinañ ci tuumaal gor bo xam deful dara jël àddunaam yàqu ko parce que xeex akaay lañ koy def. mais euh, oustaz euh, loi yooyu it am na ñu koy jàppee ci ne maanaam dafay dissuader defkati ñaawte fii ndax bu fekkente ne dañ ne boo violé lii lañ lay daan nga xam ne yow lii buñ la ko daanee sa àdduna yàqu na. bala nga koy def ak loo yore xelum bàyyi ma yore xelum bàyyi ma di nga xalaat fa ngay mujj Mohamed d'accord naa ci Mohamed ñun dañoo woote dañoo woote fii ñun ñi njëkk woote peine ci lañ bokk hmm. nit bu rayee nañ ko rey kon waxuma loi bi hmm. mais dama ne ñu koy càmbar laa wax maanaam di bañ di sànq nit ñi ci erreur dinañ ci sànq nit dinañ ci sànq Mohamed dama gis koo xam ne mais léegi mu jeexal peine dix ans viol lañ ko jiñ mais defu ko te mu ci Hmm? ay kayit la ñuy lijjanti toppatoo xeexee kay pour toroxal ci doomu aadama foofu laa waxee. Hmm, hmm, mais loi bi nu man a nu mën a sévéré ba saay-saay bi moom ñu man koy teg loi mu bañ koy def tey soo see ànd na ci dama la damaa wootee peine de mort pour wan la ne la loi bi. mu nekk mu nekk loo xam ne perpète la. ànd naa ci pour ñu koy appliquer mais dama ne dafa jaar parce que gis naa ñoo xam ne ñu ngi ci kaso gi di dix ans ñu jiñ leen viol mais defuñu ko. moo tax man la loi yooyu dafa jar parce que nag moo amee suñu suñu loi yi. Mhm. malaayika woote wu ko du alquran du tawraat du injil ay nit ñoo dajaloo jàng ko dama lay waxal nit ñooñu liñ jàng nit ñi jàng nañ ko de loi yi fii fii la loi bi buñ koy teg dañ koy teg selon société bi ni muy doxee. Mhm. barki dem ba am na ko fi ñëw te watu góor jigéen barki dem ba xam lan laa wax. Mhm. dama ne moom xamul société sénégalais mais président Macky la xam na société bi mu moom. kon moom d'accord nag moom mu nga Canada jógee fa ñëw mais ki jiite Sénégal xam na lan loi loi ci nit ñi lañ koy appliquer. Hmm. selon nit ñi seen dund ak si liñ gëm-gëm ca la ñuy wootu loi yi atti réew mi. mais bu fekkee nag ku mere tey Socé wala nga mere Mouhamed Ndiaye dem topp gis naa koo xam ne dafa dem dañ koy jiñ viol dem toppatoo këyit ñu defaral ko këyit gi këyit gi valable ñu ñëw ñu tëj ko 10 ans fii ci Sénégal mu ngi tëdd maanaam man léegi mu ngi tëdd te du dëgg amul. kon loi yooyu nañu ko fexe di xool bañ koy def xeexe kay d'accord naa ñu appliqué ko parce que xale bu ndaw ngay tëdd ak moom sa doomu euh, xale bu juddoogul xale bu tuuti ngay def ak moom lu bon nañ te ñu woote itam loi ci góor jigéen am na fi. Hmm. nañ woote loi pédophilie nañ ko criminaliser mais nañ woote loi góor jigéen nañ ko criminaliser liñ fi war a woote yëpp nañ ko woote di ko appliqué tey tey ci loi yi foofu rek laa waxee ya Mouhamad. beneen bi dinañ ci lor sinon dinañ ci lor gor dinañ ci tuumal nit lor ci gor goo xam ne deful dara ñu yàq adunam loolu laa ci bañ moo tax dafa laaj ñu càmbar ko loolu avocat yeeg juge yeeg magistrat yeeg ñëpp ñoom laa ci invité xam nañ li may wax lan la. très bien beneen wàll euh, oustaz ci beneen ponk ah. dañuy gis ne ñaare xale boo dégg ñu ne eh, ñu ne maanaam dañu ko violé wala dañoo ah. def euh, acte contre nature ci moom genre mel noonu mm. xeetu saay-saay yooyu. da ngay mm-hmm. dégg mu ne bi moo ko njëkkee def bi moo ko defaatee mu mel ne kon euh, communication bi war ci diggante xale yi ak seen i parents fii ci Sénégal dafa mel ne dafa des. am na solo Mohamed. Mm-hmm. xale bu génnee bu ñëwee. xale dañ ne doo ko doo ko boo koy laaj lu bari da nga koy jàngal nettali ak fen mhm. mais xale am na noo mën a cër doog moom ba fa jógee lan la fa nekkee woon nga xam ko mhm. mais Mohamed ñun yi dañ daan génn ñëw ñu laaj foo nekkoon mhm. loo doon def léeg-léeg def fóon sa gémmiñ gi lekk fan nga ko lekkee dañ la ko doon laaj wala fóon say loxo ndax day xeeñ si mais yow amoo mais yow amoo soxla ci sa doom yow toppatoo sa doom xamaloo fu mu dugg xamaloo fu mu génn parents yi am na ci responsabilité te nag itam yàlla joxoon ñu suñu doom yi rek ñu bàyyi leen de dañu koy laaj yowmal xiyaam bu fekkee ne ay jullit lañu. Mhm. alxuraan doon na wax ne waa ji dafa jullim dafa rafet. julli gi rafet koor gi rafet ak lépp rafet ñu koy xëcc di dugal àjjana dem ba mu waa ji dugal àjjana ñu am benn tableau ñu bind ci stop stop benn question lañ koy laaj mooy moom léppam rafet na mu ngi dem àjjana mais njabootam moom lu mu def ci ñoom ñu ne ndekete ndaw njaboot gi dafa leen basarde toppatoowu leen ñu ne ko amuloo droit dugg yow retournel kon suñ njaboot gi bokk na ci ñii tax ñuy dem àjjana du julli rek ak woor ak sarax rek dem ca gàmmoo ak dem ca conférence ba de mais toppatoo li ñu yàlla jox contrôler leen yar leen bañ nekk ay nit ñu libéré ko société bi loolu yàlla daf ñu ciy fay ajana mais yow sa yoon ci sa doom xamuloo ku muy àndal xamuloo fu mu génnee xamuloo fu mu duggoon xamoo góor la xamul góor jigéen la xamuloo lan la yow daal sa bopp rek jiit jur doom yi rek di sànni mais loolu itam du responsabilité ma met sa doom bu ñëwee ànd ak xaritu jigéen xale bu jigéen boobu fexeel xam fu mu dëkk kuy yaayam kuy baayam parce que sa doom ànd na ak moom bu ñëwee ci kër ga man sama Mohamed. Mhm. Mohamed man sama doom yu jigéen yi am na ci ñu sëy yi mais ko ànd ak xale bu jigéen ba dinaa laaj kan mooy sa yaay kan mooy sa papa dama koy lijjanti. parce que nit ki ni mel noonu la yaayam mel noonu la baayam mel kon ki ànd ak sa doom lijjantil kan la mais yow sa yoon ci sa doom bu génnee bu ñëwee sa yoon new ci pédophile nañ ko def nañ ko benn yoon mu nëbbu ko ñu defaat ko ko ñaar defaat ko ñett bañ ñeenteel ba nga doo koy xam yow parent bi kon la muy tekk yow sa yoon ci sa doom kon yooyu tam na ci parents yi bàyyi seen xel nañ di contrôler suñu njaboot di xool ñu ñuy àndal di xool fan lañ dem te bàyyi jëkkër yi ñuy contrôler affaire viol nag di contrôler xale mhm. viol nag moo xam oustaz baat njàngalekat baat dama la nit a koy def nit ndax fii jiitee ab oustaz ne moo ko def fële jiñ nañ ku jógee France ñu yaakaar ne moo yore avenir footballu Sénégal ñu jiñ ko ko moom itam mu koy def mhm. kon wàllu doomu aadama la wallu nit la loi bi nag bu ñu ko càmbaree ba mu wóor ne waa ji dafa coupable nañu ko appliquer ci koom mhm. pour bu ëllëgee keneen bañ koy def loolu dama ci ànd waaye daal ñu tey ji ay gora ngi fi ñu ngi ci kaso gi jiñ leen leen viol te defuñu ko jegewuñu ko dañ leen cee xeex dañ leen bëgg a tànk moo tax ñu def ko loolu fees na lépp fees na ci Sénégal kon loolu yaa met nañ ci tey. te loolu diine da vraiment vraiment vraiment loolu rek la loolu diine da koo dàq. ah ma ne te loolu diine da koo dàq jiñ nit ki lu mu deful diine da moom Mohamed su ma la su ma la tuumaalee. Mhm. xamuñu suñu luwaay yi dafa des Mohamed su ma la tuumaalee. Mhm. ñu vérifier nga coupable yoon yoon yoon day yoon yoon dañu appliquer yoon ci yow mm-hmm. mais su ma la tuumaalee ñu vérifier eh, yow doonuloo coupable yow mi ma man mi la tuumaal man lan la yoon di def ci man bu dee islam man mi la tuumaal te la ma la tuumaal defuloo ko islam daf may sanctionné ci tuuma yooyu parce que tuuma dafa xaw a doy waar tuuma ci boppam tooñ la moo tax islam ne almutahamu bari un xataa tasbuta idanatuhu nit ki bu ñu ko tuumaali innocent la nañu ko bàyyi waruñ ko dóor mandat dépôt nañ ko bàyyi contrôle contrôle judiciaire buñ ko vérifié ba mu wóor ne moo def ñu doo koy jël dugal ko ca kaso ga looloo am France looloo am Amérique te loolu mooy charia islamique encore yaa Muhammad. jërëjëf kii li fi ne moom wax dëgg yàlla sama réew la mais gënul. du sis sis bu jaar yoon yaa Mouhamad maa ngi lay gërëm bu baax a baax oustaz Tayib jërëjëf merci beaucoup ponk jamono ajuma bu nekk ni ñu ko baaxoo di ci ànd ak oustaz Tayib Socé tay ñu doon waxtaanee xewit bi ñu nemmiku ci jamono di ay xale yoo xam ne eh, dañ leen di def naka su dul noonu ku ñu ci sàkkuwul saay saaye nañ la mbiri pédophile ki xeet bu mel noonu wax nañu li ci xalaatam wax nañu li ci diine digle ñi ngi koy gërëm bu baax a baax sant ko gërëm leen yéen ci ànd beeg radio Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Publicité sur RFM.